waajal fan yi tax mu mu parce que dañoo seetlu suñu zone dafa bëri ay problème ay problème yu dul jeex ñoo fa problème foncier muy problème éducation muy problème électrification muy problème ndox euh, problème environnement dafa bëri daal ay problèmes. yaa ngi dégg léegi nag comme maire bi nga xamante ni moo nekk sur place amul lu ñu benn njëriñ te taxawul askan bi deful liggéeyam ñun jeunes yi ñu ni pourquoi pas duñu taxawal benn mouvement jéem a xeex problème yooyu noonu jéem a apporter ci solution donc noonu lañ taxawalee suñu mouvement pare pour taxaw askan bi pour dimbale askan bi ci problème noonu problème yooyu yëpp ñu jéem ko saafara mouvement bi mhm. li ko dalee zone yàlla depuis Diadième 3 ba Mbourène hmm, jeunes yooyu noonu yëpp ñoom ñoo dajalewu booloo seen doole créer li ñu wax mouvement yàlla famille yi xam nga lëkkaloo ak waa Jaajëm lëkkaloo ak waa Mbundum lëkkaloo ak commune bi yëpp pour score bi nga xamante ni am nañ ko ci élection législative yi passé ñu jëm ko maintenir présidentielle maintenir ko local 2019 yi ñu mën a tàggoo Omar Sow euh, ñun suñu premier projet mooy fexe ba maire bi fa nekk jóge fa parce que ñun jeunes yi mënuñu entreprendre dara ci commune bi te maire bi àndu ci te ñun ànduñu ak moom ça fait 15 ans qu'il est là mu ngi foofu noonu

mais élection législative yi passé dañ ko fa duma duma yu metti c'est comprendre mais score Dagana bi moo am doole moom moo nëbb dafa xam mais dañ ko fa battre te incha allah rabi élection locale yi di ñëw 2019 dañoo pare jàkkaarloo moom jëlee ko fa parce que liggéeyalu zone bi ñu benn njëriñ musul taxawu zone bi musul kaasal zone bi kenn mus ko gis télé kenn mus ko dégg rajo kenn mus ko gis fenn foo xamante ni ñu ni maire bi kat mu góor góorgóorlu pour dimbale pour dimbale askanam boo xoolee ci wàllum éducation am na benn zone bu ñuy su sous zone de Mbawar ba léegi tey mënuñu am CM te depuis presque sept ans ñu ngi toog ci ginnaaw maire bi di ko wax pour mu jàppale ñu mais mu susi def benn effort cinq heures du matin lay booy di yeewu yëg ci benn kaar boo xamante ni xal yu ñu ci ñi dañuy nekk ci biir ñi yëg ci kaw pour dem jama jàngi te balaa ñuy ñëw 17 heures booy du ñu ndekki du ñu añ ñoo ngi nekk ci ay conditions yu extrêmement difficile jigéen ñu bëri bàyyi nañ jàng côté boobu parce que condition yi moo leen permettre ñu mun dem école di ñëw parce que mënoon ndekki mënoo añ ba pare nga ni damay jàng c'est incompréhensible boo xoolee euh, lycée jamono ba léegi lycée bi amul clôture lycée bi amul courant lycée bi ba léegi am na salle de classe yoo xamante ni amul fenêtre lycée bi amul toilette lycée bi amul dara te maire bi jéemu ci def dara xam nga. gars yi jéem nañ ko gis mais ba tey munu ci apporter benn solution te jëm ci dara tamit suñu taxawaay ci loolu mooy mooy lii rek kaas nit ñi xam ne li mooy suñ problème pour que gouvernement bi fi nekk jéem a ñëw jàppale ñu parce que ñun ci Sénégal lañ bokk PUDC bi ñuy wax ni Souleymane Jules Diop dirigé ko ma ñun dégg-dégg rek ci am dégg-dégg kese lañ ci am ba léegi ñun sentiruñ suñu bopp ci Sénégal émergent gisuñu fenn foo xamante ni gouvernement bi moom moom ñu fay taxaw boo xoolee tey wàllu électrification naka ngay ñëwee ci benn son yaa ngi dégg mu nekk projet d' électrification nga dugal ci yenn village yi courant ñi si des nga bàyyi leen loolu c'est quel ban genre xeetu projet la dañuy woote wàllu parce que waa ASER ASER mi nga xamante ne ñoom ñooy gérer électrification rural bind na ñeen ça fait un an ñii casse problème loolu bind na ñeen récemment mais ba tey amul réponse parce que mënuñ comprendre ñii am courant ñii amuñu courant loolu mooy ban xeetu projet ñun loolu la ñuy kaas loolu la ñu bëgg ku ñu ci dimbale. mouvement de développement la mais écarté wuñu politique parce que ki fi nekk comme liggéeyul yaa ngi dégg bu fekkente ni nee dafay jàppale Macky Sall maa ngi wax président Macky Sall ne ko kooku du ko jàppale bu dee commune de Diama rek moo des ci Macky Sall faru ma xam ne Macky Sall du faru parce que ñun ànduñu ak moom te moom lépp lu mu tax du ñu ànd ak moom. mi ñun ay APR lañu woon mais tey nekku nekkuñ APR ndax moom lu mu nekk APR yaa ngi dégg mouvement de développement la bi diagnostiqué ay problème pare pour xeex problème yi mais aussi élection yi bu ñëwee danañ xool ban parti lañ mën a rangé wu pour mën a jàkkaarloo ak moom pour moom bañ a am dara ci ci gox bi gëm naa ko gëm naa ne yóbbu ko parce que Macky Sall 2012 ñëwoon na foofu ci gox bi am na ay engagement yoo xamante ni euh, jëloon na ko fa te ba tey moom ñoo ngi koy rappelé ne ko gisaguñu engagement yooyu noonu yaa ngi dégg parce que le maire en question moom daal xaw ma la quoi parawul daal pour soutenir population bi gisuñ ko benn yoon muy kaasal population bi ne man sama askan lii la bëgg lii la bëgg lii la bëgg ba léegi gisuñu ko donc maa xam naa ne dafay nax président mais parawul pour liggéey ko. donc monsieur le président ñun li koy wax mooy ñun dañ ko bëggoon suñu xol parce que en 2012 dañ ko campagne ak suñu propre moyen parce que dañu amoon ci moom te ba tey yaakaar boobu tasul. wante li fa nekk maire bi fa nekk dana tax ñun danañ foote contre moom ndax lim daw transhumé dugg APR waaw tey dañoo jël décision ferme ne dañuy génn APR pour mun a xool keneen koo xamante ne dañ mën a jàkkaar euh, dañ mën a ànd ak moom pour ñu daan ko moom parce ñun amuñu lu dul suñu gox suñu gox rek lañ am képp ku ñu jàppale ñu jàppale la ku ñu jàppale wu duñ la mënuñu daal jàppale mm-hmm. voilà président rek maa ngi koy wax ne ko mu yónnee ay ay ndaw mu yénne ay ndaw yoo xamante ne danañ ñëw ci zone bi ñu xool yan jafe-jafe la si la la population bi di jàkkoonteel mu jëm ci wut saafara parce que bu dee ka fa nekk rek la kooku moom parewul pour dimbali ñu daal hmm.